Thank you. ndeysaan mu ngi noonu final ndeysaan ah tey la 4 gi la diggante Ibou Ndiaye Obali ak xam ne mooy Caaka Fay Biram Kungkung ndeysaan woon Fatou production nee naa la Yékini moo jël le meilleur lutteur mu ñëwaat fii nga xam ne 15 ans yi kenn daanu ko ndeysaan mu bàyyi làmb mu ne. damay bàyyi lamb waaye aada yemu fa day dundal lamb fas yéene tëgal xale yi 3 millions 3 millions ku nekk jot sa wàll Ibou Ndiaye Obali ak ki nga xam ne mooy caaka fay ndeysaan final ba kenn du la ko wax. koy jangana drapeau xe mana cooxel drapeau fe Jacques voilà Djibi Sène nu mu ak ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Oboli Fat production mu nekk fii ci journée terrain gaal gi nee naa leen Thiaka Thiaka Faye ak Ibou Ndiaye Oboli ndeysaan gonek Joof yor ga ñu ngay bëre ku nekk a borom baaraam morom jàppante nañ jàppante kaw Ibou Ndiaye Oboli caaka fay ndeysaan Ibou Ndiaye o boli caaka fay nee naa la bëre ñaari punkal lañ ko nar a def di puusante bu kii puusee ba fi puus ba fii waaye yaakaar naa ne buñ jàppante lamb ji jeex biram kunkung ak ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye o boli ndeysaan biram kunkung moo ngi taxaw na jot i Ndiaye o boli taxaw na biram kunkung mu ngay sëlmu lan la Ibou Ndiaye Obali oh Biram Kungkung déggal loolu Ibou Ndiaye Obali oh Biram Kungkung Caaka Fay Ibou Ndiaye Obali oh ngi attaqué mu ngi waaye Biram Kungkung mayu ko ko nañu jéem takk mu ngi koy jéem a plaqué demul Ibou Biram Kungkung punkal la ndeysaan Oboli Caaka Fay Ibu Caaka Fay ndeysaan Caaka Fay ba tey ñoo ngi déglu ku nekk ngi déglu sa morom Ibou Ndiaye Obali journée yi kini Fatou production fii ci Dakar dem na Joal Ñaaxaar la dem fi nga xam ne mooy Joal ñëw Mbour tey mu ñëw Dakar kooko Yékini kooko Yaxya Jóob Yékini Caaka Fay Ibou Ndiaye Obali Obali jéem na ko jàpp moo koy puus Obali koy bëgg a takk waaye caaka fay may ko ko ñu ngay damantey baaraam ñu ngay damantey baaraam o boli ak caaka fay mbiram kungkung o boli o boli ak caaka fay Guèye ak Caaka Faye Ibou Ndiaye jël na ko Caaka Faye rasu Caaka Faye jàpp na tànk am na avertissement Caaka Faye ndeysaan arbitre nee na leen bëre leen ndeysaan mu ngay kàbbaraat ëppali cokkaas na ko demul caaka fay ngi ne jodd taxaw Obeuly ak caaka fay Obeuly ak caaka fay Obeuly caaka fay jàppante nañ jàppante nañ Obeuly rasu dem na caaka Obeuly caaka fay caaka fay bëggul jàppante bi caaka fay bëggul jàppante bi Obeuly daa bëgg jàpp waaye caaka fay may ko ko Obeuly caaka fay o boli caaka fay o boli caaka fay Obali Caaka Fay Obali Caaka Fay Obali moo ngay jéem a jàpp waaye Caaka Fay may koko Ibou Ndiaye Obali eh, damay bañ laa mujj jeexee par avertissement bëre leen Caaka Fay Obali ngi jéem a attaqué waaye caaka day génn caaka jàpp na tànk bi oboli bi caaka jàpp na tànk oboli bi nelaw na ci tànk bi caaka daanu na laa ilaaha illallah oboli daan na caaka oboli daan na caaka laa ilaaha illallah oboli daan na caaka fay oboli daan na ki nga xam ne mooy caaka fay